Kadugia lalaon, kadugia udonit, te deketi sunyu bi, hana havulene, yenai keru yalla, te helum yalla dekenasi kie. Kusam sama kadu, sama baay dina ko bëgg te dinañu ñëw ci moom te dëkk si ci moom asamaan mooy sama yal suuf di tegu kaayu tànk ban kër may tabaxal be mu doon noppalukaay kaddu gi yàlla la woon kaddu gi ñëw doon nit te dëkk ci suñu biir xanaa xamuleen ne yéenay këru yàlla te xelum yàlla dëkk na si ci ni ma baay bi bëggee noonu laa leen bëggee sax ci mbëggeel googu mbëggeel bi ma am ci asamaan mooy sama jal suuf di tegu kaayu tànk ban may tabaxal be mu doon noppalukaay kaadu gi yàlla la woo kaddu gi ñëw doon nit te dëkk ci suñu biir xanaa xamuleen ne yéenay këru yàlla te xelum yàlla dëkk na si ci yéen na leen yiw yàlla sonal amen